Sadia doguma la mais ñu may wax ni euh, Cheikh Diop moom itam mu ngi ci euh, ligne bi bëgg a bokk ci waxtaan bi Daouda ba bàyyi la nga jël Cheikh Diop bu CNTS FC mom itam mu daal di bokk ci waxtaan bi wax ñi li nga xam ne mooy ay mébétam ak ay doléance am ci premier mai bi ñu nekk tey jëlee. alors monsieur Diop ñoo lay nuyu. Euh, dalal si Dakar Actu. maa ngi leen di fay. Hmm. maa ngi leen di fay di di di nuyuwaale seen. téléspectateurs yi ko mais mhm. également di nuyu suma camarade Mballo ak ñi mu bokal plateau bi mhm. alors euh, euh, LG vais la rendre hommage si premier mai bi nga xamante ni célébrer tay alors gis nañ c'est ça se fait d'une manière spéciale il n'y a pas de cahier de doléances a une cérémonie comme nous ko doon défé à la place de l'indépendance alors ban jangat d'abord nga am ci li ni mel est-ce que c'est pas un message bo xamante war nañ ko décortiquer surtout si contexte biñ nek waaw euh, première mai wu ren bi hmm. wax deug yalla mi ngi soog am depuis des centaines d'années euh, mom lay faral di wax première mai online motax ma ci profito di souhaiter liggéeykatu Sénégal yépp

jamono moo ko laaj parce que ñun syndicalistes yi dañuy faral di wax ne jamono guerre mhm. revendication amatul benn revendication rek mooy am muy jàmm jàmm dellu si mhm. kon lii aussi dañ ko jàppe guerre ba tax na tey jii benn revendication rek lañ am mooy fexe ba dàq mbas mi ci Sénégal dàq mbas mi ci àdduna bi yëpp mhm. loolu nag liggéeykat yi ak monde du travail dañ ci am cër dañ ci am cër parce que mbas mi bi crise bi bi mu da bi mu da mhm. daje nañu ak chef de l'État wax nañ ko li nga xamné mo moo suñu préoccupation ci ci situation bi. Mhm. muy ñu sécuriser salaire yi. sauvegarder emploi yi. mais également buñu démé ba wara dem ci chômage technique ñu encadré ko. Mhm. lolu wax dëgg yalla chef de l'État tontu na ci positivement. waye it ni ñuy liggéeyee ci biir entreprise yi aussi dañ ko définir ba mu leer pour que liggéeykat yi ñu aar leen rawatina liggéeykatu santé yi mhm. xam naa li ñu war a wax ci liggéeykatu santé yépp suma camarade Mballo wax na ko ñoo ñu bokk nañ ci ñi ñu war a jëkk aar bokk na ci ñi gën a war a gën a bàyyi xel mhm. ba tax na li nga xam ne tey moo dal ci senegal kon liggéey bi aar nañ waroon nañ ko aar def nañ ci ay djégo mais également économie bi war nañ ko ar parce que li bu jeexee dañuy ci wat situation normale te ci wat situation normale fekk te économie bu nek en lambo gënul loolu it bokkoon na ci suñu préoccupation chef de l'État amna acte yu mu djël mom lay wax plan d'urgence de résilience économique et sociale mhm. économique et sociale parce que aussi askan wi bayinañ len xel ñun kat yi parce que dañuy faral di wax né suñu ittee ak ittee askan wi benn la suñu préoccupation mi ci biir préoccupation askan wi kon buñ dee wax dañuy waxale askan wi ba tax na aussi résilience bi dem na ci euh, askan wi ñi gën a néew doole. kon loolu yëpp ay situation la yu nga xam ne dañ ko war a jàngat niñ ko war a jàngate mooy dafa wone ne àdduna bi amul réew mu am doole ba mën a muñ. solidarité mhm. amul réew mu néew doole ba démérité solidarité boo seetloo États-Unis Russie di jël duy ay avion wu ndimbal di ko États-Unis kon nga war a war nañu xool mbas mi li mu jur adduna bi doxe noonu mhm. adduna bi dox ci kaw fonkat valeur travail mhm. mais également ñu dugal ci suñu doxaliin ci politique publique ak ni ñuy doxale solidarité mhm. bàyyi xel aussi ki nga xamné ne moo tax lépp am muy lumain muy nit ci boppam mhm. bo setlo ma joxe ci exemple rek ñi nga xamné ay travailleurs atypiques lañ wala muy ñi nga xamné ay marginaux lañ mhm. ñi wax SDF sans domicile fixe sans domicile fixe boo demee fu mel ni état Californie ci biir États-Unis am na cinq cent mille sans domicile fixe hmm. dañ leen daan romb kenn du leen faale kenn du jàpp sax ne ay nit lañ tey jii ñooñu ñëpp jël nañ leen loger leen ci ay hôtel utal leen li ñuy wax ay mobile home hmm. ut ay médecin ñu leen di ay ay personnel soignant ñu ñu leen di top toppatoo waaw loolu lu tax tàmbali wuñ ko woon lu tax defu ñu ko woon dañuy xaar ba mbas mi am ñu koy def <laughs> kon jàpp nañ ne war nañ tirer enseignement yi wara a tirer yépp ci mbass mi pour que mm. aduna àdduna wat ci weneen yoon mom la ñun syndicaliste ak militant euh, équité militant justice sociale militant progrès ñun mom la ñuy wax un nouveau contrat social kon lool war nañ ci jàmbat war ci bàyyi xel. d'accord Moustapha Monsieur Diop. Euh, xanaa rek peut-être euh, ñëwaat ci li nga xam euh, ndogal mi jël protéger li nga yi ci lépp lu jëm ci licenciement fexe itam ba chômage technique ñu di salaire wala 70 pour ci li nga est-ce que yaakaar ngeen dafa régler problème yëpp wala ay revendication ba war ngeen contexte bi comme ngeen ko dafa peut-être xalaat taxawaay yi maa ngi koo doon benn. waaw xam nga revendication moom du jeex. Mhm. tant que machine yaa ngi tourné revendication yi di juddu. Mhm. kon mbas mi terewul revendication am na. Mhm. Euh, cahier de doléance aussi am na. dañ ko daawul manifeste am na def nañ manifeste du première mai. mais dañ ko daawul dañ ko mënul defee ni ñu ko daan defee. cahier de doléance bi dinañ ko transmettre dinañ ko fexé administrativement autorité bi jot ko pour que bu ñuy yé passé ñu déllu siwaat nak ci doléance su kat yi kon lolu amna mhm. euh wayé jamono bi dafa am ay mesures ñu jël muy li nga rappelé légui nañ mhm. fexé ba kenn baña a ci jamono bi amna ñuy dàq nañu fexé ba entreprise bu mu dem dem ba mëna to fay nga organiser chômage technique chômage technique bokoy organiser ni lay ni muy demee moy mhm. fay nit ñi lu salaire C'est mhm. lool la ordonnance mhm. mais est-ce que ñepp a koy doxal waye ordonnance ne def len li te amuñu moyen def aussi xam du soti ñun chef de l'État du recevoir bàyyi woon nañ xel liguey kat yi waye it bàyyi woon nañ xel entreprise bi ak économie bi. Mhm. motax ci plan de résilience jël nañ ay mesures d'accompagnement pour que ordonnance ñu mun ko appliquer. Mhm. ci entreprise yi. ñu bëgg nak mesures yoyu ñu jëloon nañ gaaw mettre ko en œuvre parce que su gaawul am na mhm. entreprise yu nga xam ne duñ mën a respecter euh, ordonnance bi kon nañ gaaw ñi soxla mesure d'accompagnement yi gaaw ci jot waaye it dañu parce que avant crise bi dafa entreprise yu commencé woon jafe am jafe-jafe ci wàllu dette intérieure kon mm. d'accompagnement pour les dettes intérieures dette intérieure bi à fayaale ko loolu am naa yaakaar ne que ñu ko une entreprise yi raison pour respecter euh, terme ordonnance -hmm.